alhamdulillahi ala ixsaanihi wa shukru lahu ala tawfiiqihi wa imtinaanihi wa ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu laa sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu daaci ila ridwaane sallallahu alayhi wa ala alihi wa ixwaanihi kullihim ajmain bokki jullit yi gannaaw ba nu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey baalu xaq ñépp yàlla nu yàlla boole jéggal di fàttalante ak sunu mbokki jullit yépp rawatina ñi nga xam ne seeni xol mu ngi dund di nox noxi bu ñu yëgee lenn loo xam ne daa raam jëm ci diine te bu fa amee kër du gaaw a génn luy raam nag naka jekk nit da ko daa bàyyi xel yàlla noonu yàlla musal ci ayu luy raam ku ne xam na li ci nit ku ñuul jublu tey ñuy fàttilante ak bokk jullit yooyu nga xam ne seeni xol a ngi dund di nox yi bu ñu yégee lenn loo xam ne daaraam jëm ci diine dutuñ am jàmm ñu xam ne bis bii nga xam ne ci lañu nekk tey muy bisub aljumaa suñu boroom moo ko tànn ci biir bisam yi moom moom yépp waaye mooy tànn ci biir moomeelam gi moo wax ne wa ko yaxluqu maa yashaau wa yaxtaar maa kaana lahum alxiyratu min amrihim yàlla moo bind lépp waaye nag moo cay tànn lu ko soob féetale ko kaw ci ay moroomam te ñooñu duñ sañ bañ la cay jàmm mooy nangu rek teel a nangu sax nit ku ñuul wolof nee na teel a nangu moo gën a noppale moo gën a neex ci tànn gi mu tànn bisub aljumaa nag moo jiitu e, ndaje mi ñu ciy daje di ci julli ci jumaa yi tëj jàkk yépp waaye ba muy gàll ci loos jullit yi war gu leen julli a julli ji ajjuma war e, subhanahu wa du kenn kenn du moom daf caa tuddaale loo xam ne léeg-léeg jamono dox ba mu yàgg mu dab waa jamono ndekete yoo bam ko waxee yàgg na waaye la muy la ci jublu dëgg-dëgg ñu ngi koy soog a teg bët aaya bi dafa wax ne dafa wax ne yéen ñi nga xam ne euh, nangu ngeen ci seeni xol ne yàlla rek mooy yàlla kenn dimbalewu ko ci dara te kenn du ko mës a dimbale ci dara amul maas amul morom amul màppandoo yéen ñu nangu loolu ci seeni seen xol fas ko di ko jëfe ci seeni cër ñu di leen xàmmee ak ñi nga xam ne fasuñu li ngeen fas saa bu ngeen déggatee noddu tisbaari aljumaa te mooy nodd gi nga xam ne bu daanoo rek ñu tàmbalee xutba su ngeen ko déggatee lagg leen bàyyi ne la ngeen doon def lépp booba nag jaay ak jënd moo gënoon not ca jamono jooju moo tax mu jëfandikoo jaay ak jënd waaye jaay ak jënd dara génn ko ci nit ñi yëngutoo defaral ma ma fay la ci jaay ak jënd la bokk ndax day amum jën ak jaay ak jënd mi xam ak seeni bokk mu ne lim leen joxoñ ngeen jëm ca moo gën ci yéen su ngeen xamoon ni ma xame ñu ne ko ñaata nu mu yàgge mu ne moom ko yàggut su jeexee kenn ku ne mën na dellu ci lam nekkoon dellu di yaakaaraat yàlla booba nag ci ay riwaayaat yu wuute ya ca bari yu ca bari wér wax nañu ne sallallahu alayhi wa sallam mi mu jaare woon ci moom mu jëkk koo jëfandikoo da daan def bu sëlmalee ba noppi lay jàkkaarloog nit ñi di wax ak ñoom ni ñu koy defe ci jullit tabaski wala korite waaye benn bis daal la am njëgg agsi ci biir dëkk bi bu doon suñ jamono dañ naan conteneur wàcc xusut xus xujur xujur yi na sa gàññ muy wax ba ci digg rek ñu ne diw wàcc na conteneur rek ñu ne ko fu ñukk kenn ku nekk di tànni sa conteneur ba lam ci soxla mu ne ko wa idaa raaw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka xaa'ima yow kenn nga ne cundum waaye ne leen maa inda min allahu la yàlla yor moo ëpp conteneur la fa moom moo ëpp conteneur fuuf ndax conteneur mii leen yéem ba tax ngeen jóg jëm ca lenn lu tuuti la ci li yàlla yor mën a gàññ te bu kenn aj li muy am ci conteneur ba tax nga bàyyi fa ku tedd ki mën a cundum dara jëru ko ci àdduna ndax lu am lu waay am yàlla ko ko jox te la yàlla yor du jeex wa ida raw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qaima qul ma wa min tax euh, ci laa jëm ci ci tuuti lu ñu tënk lay doon mu gàtt bisub aljumaa boobu yi nga xam ne dañuy tëj jàkka yi euh, waa jàkka jëpp dem daje ca jumaa ja diggante boobu sax fiqhul islaami al fiqhul islaami jàngale na ne luñ fa fas rek fasuwut moo xam muy jaay walla jënd walla lenn loo xam ne day lu ñuy fas la muy am pas-pas luñ ca def daal baaxul nit ki nag mën naa bañ a yëg ak yàqoom waaye bis day ñëw bu ñu koy regle regle ko ko ca sànni ko ca mbalit ma te defoon na ne moo ne lu baax la woon aljumaa jooju nga xam ne ci la jaamu yàlla wuré googu nekk ba tax tëj jàkka di waru gar eh, bis la ci bis suñu borom yi waaye du bisu caaxaan ndax ci tënk rek eh, <clears throat> yàlla defal na ko ay may ak ngëneel yoo xam ne defalu ko bis yi ci des ndax mooy tëj jàkka yépp te jàmm rek xew la ci dolli ko it yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ulul kitaab yi ñu jiitu an nasara wal yahud e, ba ñu yëgee secret bi nekk ci bisub aljumaa ndax ci la yàlla bindoon suñu maam aadama ci la ko joxewoon ndigalul dugg aljanna uskun anta wa zawjuka waaye ca la ko génnewaat aljanna it ihbita minha jamian baadukum li baad waaye it ci la bis penc di taxaw kon bisub aljumaa benn la ci bis suñu borom yi nga xam ne bokkut ak wute nag ñoom ci lu bari lu ko yàlla jagleel moom wutiwu ko waaye yàlla ko jagleel yonent bi sallallahu alayhi wa ne bi yahud yi yëgee mbóot mi ci nekk ci ful guñ ciy ful ak jaamu yàlla eh, ak ya aju te <coughs> muy kafaara li nekk ci digganteem ak moroomam ci ay rëcc-rëcc yu muy faral jaam bi ba gaayee xamee sekkare ba ca nekk nag taxutoon ñu xam ne aljumaa ci boppam la ñii dañ ko doon dàkk ci gaaw bi ñii di ko dàpp dàkk ci dibeer ji naan xam naa ne soriwut fii waaye yonent bi sallallahu alayhi wa nag nee na li tax ngeen war cee gën a sant yàlla mooy euh, ñun ñi la yàlla xamal bis bi mu doon muy yowmul jumaa bi nga xam ne su jàllee gaaw wàccee topp dibeer topp ca kon ñoom dañ doon dàkk waaye waxuma la lare sax waaye jam sax defuñu ko far ñun nag ñun ñooy ñi nga xam ne ñun la ko fi suñu borom bàyyi loon bokk yi nag lu ñu doon séddale nekkoo fa ñu bàyyi la fa sa wàll war ngaa bàyyi xel yaar ka doon séddale ak lam la sédd teg ko fa nga bañ koo yàq moo tax mu ne ñun ñii di aw xeetam moom sallallahu alayhi wa sallam ñoo mujj a ñëw waaye bu ëllëgee ñooy jiitu loolu yow mën a xam su aw nit jiit jiitlee di dem eh, ki topp gannaaw ki mujj ci rang gi buñ ne wàññiku leen du foofu bu ñu wàññikoo mooy jiitu nee na nag baleen yàlla xañee ban bis la ñu di ko wër bay fenkante ay bopp ñun yàlla daf ñoo dimbale ñu dal ca tegg cër bu doon moo tax mu ne bis yi gën bis yépp bis ba ca gën jant di ca fenk mooy bisub aljuma ndax ci la suñu borom bindoon suñu maam aadama ci la ko dugale aljanna ci la ko génnee aljuma muy muy fàttaliku yoo xam ne mi ngi ci gannaaw waaye ci la bis penc di taxaw moo tax li yàlla bind lépp ci ay mbindeef ku ci dul nit ak ginne rek bu aljumaa ñëwee da nga naan ñog naan mbaadu bisub tey ji ajjuma jii la ñu baax ñi nga xam ne ñoom yàlla dimbali na leen ñu di ko xalaat fu ñu toll ñoom guddik aljumaa ak bëccëgub aljumaa duñ ca am jàmm dañ naan ñogg ni suñu moroomi jàmm yi ci des naan mbaaru tey la bis pénc mbaa la ma defoon daaw ak daaw jéeg mbaaru tey ji lay taxaw ñu réglé ma nee na nit ak jinne képp ñoo naan koj ko di tëral ay ndaje ak i xumb xumb yoo xam ne dañ cay dàkk aljumaa ndax lan bànneex bi day tàmbali ci bisub aljumaa ji larewaale gaaw bi ak dibeer ji ñu dallu ji ko yàlla noonu yàlla musal ci boobu dégg-dégg moo tax xew xew bi nga xam ne moo jotoon a xew fan yële te coow ya bari ca lool yu mel noonu nag saa su amee ab jullit war naa laaj nu ca war a def la weesu weesu na waaye bu ëllëgatee nu muy def bokk yi ñun ñëpp xam nañ ne euh, ñi yëngu di wër àdduna kese kese palug àdduna xawma loolu lu ko waral waaye ñaare moo ay xumb-xumb ñooy àndandoo fu mu jëm ay xumb-xumb da ko fay jiitu wala ñu ànd dem fa dama xamut dañoo àndandoo wala dañoo làng rek dañoo làng ñoom ñaar lëngoo waaye day mel ni daal bañ xamee réew mi ba fii mu nekk fu ñu tugg àdduna jëm moo yëngu-yëngu yooyu ñooy ànd ñoom xàmmewuñ ca fu jëm fa jëm rek lañuy jëm xamuñu fii la jëm wala faa ba ci dëkk bii nga xam ne ci lu ñu nekk sax tañ di si bañ yu bare bari am na ko fi doon ñëw koo xam ne am at teertu nañ ko teertu goo xam ne musuñ ko fee teertu kenn ndax génnewoon woon nañ fas yi daw ci dëkk bi yu bari ak yi mel ni fas warax yi ay nit sol ay yére yu niroole ay ndobino eh, jiitle ak ki nga xam ne moom lañu doon tertu ba indi ko ci fi nga xam ne moo gën a tedd ci dëkk bi moom la dëkk bi gën a fonk boole ko coow ya àndal yépp ba dugg ci dëkk bi loolu nag li muy tekki mooy kenn ku nekk bu ñu koy gatandu ya àndal lay àndal mbëtt bu ñu ko toggee ba noppi ñeexu mbëtt lañuy wax bar ñeexum bar la ñuy wax jën ñeexum jën la ñuy wax kenn ku nekk ak ñam àndal moo ne am na ku fi ñëwoon ci ndajem réew islam yi fi amoon ci année 90 yi ca tàmbali ba ñu koy wax uh, Ali Akbar Hashimi Rafsanjani seet si woon na fi Sëriñ Saliw radiyallahu anhu anhuma ana mu wàccee ci penc mi jëm ci kër Sëriñ Tuubaa gi lu ñu ko doon teertoo laa ilaha illa allah laa ilaha illa ba mu dugg ci biir kër Sëriñ Tuubaa moom lañ ko gunge it ba mu war a fafal naaw gi gi mu yësaloon ci diggu penc mi ba demaat kon bokk kooka am ñee xam moom laa ilaha illallah lay àndal muhammadun rasulullah ak ay daaji am ndax nabawiya yu tedd yu sell yu neex a dégg ñeneen nit fu ñu jëm noonu la àndal kon bokk loolu lenn la nañ xam ne kenn ku nekk bu ñu koy gàttandu nag ak di ko teertu lam am la fay yóbbaale ñam amit ñoo ko fay gunge mu des nag bu ñuy tabax lu jumaa walla jàkka wala loo xam ne diine da koy jëfandikoo dañuy tere kuy tabax jumaa wala jàkka di ko laajal naan lu waay man lu waay am loolu diine da koy tere bu fekkee nag danga ko koo bëgg bëgg ba dem laaj ko kum mu mën a doon kooke it buy ñëw dana wane si ne man mii maa ko liggéey ànd ak ña muy àndal loolu kenn mënu ko bañ moo tax su ëllëgee bu ñu bëggatee barab yi mel noonu la cay gën moo ñu diis ko ñoo xam ne ñi mën nañ koo def ba àggal tax sa kenn kenn du xam koo ko def yàqut nag jumaa ndax lañ cay def moo ci ëpp solo lañ cay def moo ci gën a am solo ndax ci réew yi ñu dendal rek bu yàggutoo am na ku nattu woon pas-pasu jullit yi ba xam lañ façon mi ngi ci ñoom ba tey am deet réew mu nu jege la suñ dëkkandoo la di suñuy doomi ndey ak suñuy doomi bàjjan kooka njiitum réew la woon daa tabax jumaa ju mag ndax nee na ñim yilif ku nekk ngi ci daa tabaxal jullit yi jumaa ju mag tabaxal ñeneen nit leneen waaye jumaa ja moom daa am jullit yi ne woon jullit jumaa joo xam ne ki ko tabax bokkut ci jullit yi moom ñoom seen xel xalaatu ci du jullit yi waaye anam ko saafara gis na fa loo xam ne waru ko woon a gis ci ab jullit ndax am na julli koo xam ne nee daa jox nit xaalis bu bari ay kayiti ñaari junni ñu taxaw ci bunt yëpp ku génn rek ñu jox la ñaari junni soo demee wax ko sa moroom bu demee wax ko moroomam ñu ne ah gii gii pay gën a teel ñun dañ fa doon dem ngir yàlla ndekete yoo yàlla tàmbalee fay foofa ba mu demee ba xam na nag léegi moom tàmm nañ julli si jumaa te xamuñ jan ajjuma lay doonaat jumaa ji fees la ba ni mu fi bàyyi ko kon boog lu ñuy sàkku tam jëm ci diine la ca gën a yay ñu dem sàkku ji ko ci mbooloo mi jullit yi nga xam ne dañuy def te yàlla rek tax waaye nag boo ko defloo keneen it keneen ku mën doon buy ñëw it lam am rek lay ëndaale euh, su ko defee la sëriñ bi waxoon ba muy santaane jumaay njaareem day dellu si waat dafa laaj ab lim na na ko ku nekk joxe ku ko mën a joxeel nit it na ko ko joxeel te yàlla rek tax ba mu dajee ñu defee ne nu nekk la koy def mu santaane liggéey liggéeyëb jumaay njaareem bañ demee ba xel dal ca lool mu ne leen la ma leen doon laaj kat la ma ca jublu woon may dama bëgg ëllëg ki si lu ngeen di def ngeen fexe ba defal ko seen bopp ndax ku leen mënal dana leen sañal yàlla na doon nag ka leen war a sañal moo tax euh, charte yi ñuy dajale ñu ne jumaa la jëfewut jëfe goo xam ne nag da ngay wër naan nañ ma dimbale tabaxal ma ko ba ka koy tabax moom bu noppee lu ko ca neex def fu mu ko neex jaarale la fa wax nañ ne daal na wuutee kër yi rek te bu ko kër yi gën loolu moom ëppuñ ko ñaata at lay doon mën ngaa tàmbali ba sàkket ko ba mu wër sax sàkket bu gën wa waa dëkk ba sàkket ñu tàmbalee julli ndax julli moom du nekk du nekk ñi noppi muy ñu soog a tàmbalee julli wër sa muy noppi ñu soog ko tàmbalee julli jenn jumaa mun wër sa nekk gannaaw buñ cee duggee buy taw duñ tawte najoo du leen fa fekk te wuute na kër yi moo leen gën jërut ñuy nekk naan nañ nekk ba mu noppi ñu soog a julli loolu du loolu du ak dégg diine moom ndax julli du xaar ajjuma ju ne la su ko defee su boobaa lu ñu am def ca te bañ koo wër nag di ko laajal itam dañ koy tere ndax loolu li muy xañe mooy sax saxsiya bi lislaam am dignitéem karaamaam te moo ne aw nit a ngi ne guum boof ci loo xam ne lii defar yu ne mel ab lim du dara ci ñoom waaye nag am na ñooñu dañuy sant dañuy yàq yàkkamti lool nga sant leen ko bañ def ca lañ ca bëgg a def fés ca fésaale la te ñoom bu ñu lay fésaaleel doo feeñ nga dese joxañ ba ñu dem ci leneen kon boog bisub aljuma bis la boo xam ne yemut ak bisu suñu borom yi ñi yëngu ci xumb-xumb yi nga xam ne mooy seen liggéey nañuy rus suñu boroom ci bisub aljumaa bu ñëwatee ñu dakkal boog seeni yëngatu ba ñi nga xam ne dañuy xalaat aljumaa ñoom man koo xalaat sax boog lu néew néew teñ xam ne aljumaa ju jàll du ñëwaat xujur xujur ja am na ñooñ bëgguñu ko leen ca àtte ëllëg kenn bëggut di xumbal doon sab liggéey mu faatu ñu topp ko ko ba bañ koy denc bis bañ koy salaxal xujur xujur dina gàññ kenn bëggu ko kenn bëgg ko ñi koy liggéey sax soxlawuñ ko gannaaw soxlawuñ ko nag nañ teel a tàggoog ñoom bala ñu leen a tàggaleeg moom yàlla noonu yàlla defal dëgg ak topp te musal ñu ci seytaane ki pakkam bisub aljuma nag guddik aljuma la ak bëccëgub aljuma guddik aljuma mi ngi tàmbali bu jëntub alxemes soyee guddi googu la aljumaa tàmbali ba ba bi so yonent bi sallallahu alayhi wa nee na benn yoon salaatu ala nabi allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad bu ko benn bu ci waaye defee benn dana am payug fukk su defee fukk fukk am payug téeméer téeméer junni te nee na moom sallallahu alayhi wa sallam ci boppam eh, bisub aljuma bu nekk ak bisub altina ju nekk dañu koy indil ñaata nit ñoo def salaatu mu ñoo def ñoo julli ci moom su ko defee su xoolee diw doomi diw ak doomi diw ak doomi diw daan na yàlla yewet yàlla na nga def xéewal ci diw te musal ko te ñaanu yonentum yàlla du ko delloo malaayika yépp répété ànd ak moom kon boog bis boo xam ne benn dañ koy ful fukk yoon génn càggante nag yàlla nu ci yàlla musal càggante nag bokk na ca tànqal nit ñi ba kenn xamul li muy wax ci jumaa ji moo xam ba ñuy dugg wala ba ñuy génn bi ñuy dugg léeg-léeg ñu tug àdduna ñëw ci jumaa ñu gàllankoor jullikat sax far ñam war gan la fay doon mas naa am fii fi dëkk bi Euh, ñoo xam ne ñi julli ajjuma dafa gàllu ki seeni loos ñu waajal ko fa seeni kër ñëw ñu leen da ngeen di wëri na leeg da di jaari ne bañ far def ko ci melokaan yoo xam ne seenum xel dalut seenub seenub xol seddu ca loolu nag xàq lay bëgg a nekk fu jumaa fekkati ku mën a doon nañ xam ne jumaa moom kenn rek moo fa am fu ñu ko fay bàyyi yaandeel muy koy jiite te bu ñëwut dañuy seet keneen faw kenn taxaw fa waaye ñi ci barab yi ci des yépp moom gan ñi sax ñaan may leen gan ñi ñu nekk ci sàppe si kanam gan daa war a toog ca kër ga moo tax imaamu Madina Munawwara bi mu ñëwee Tuubaa amoon nag jaaxle ndax daa ñëw Tuubaa fañ ko dalal kam dalal ba mu waajee ba noppi nekk ndax danga nga julli ji mu ne ah bu ma ko mënee am de moom a gënal ñu mu ne ko waajal boog ñu julli ci te moo ne euh, am na ñu ko doon séentu di ko ko naan bu ñëwee ndax yàlla mu jiite ñëw waaye kee moom ci dégg diineem da ko laaj ndax danga nga julli ji wala déet ndax julli ajjuma waru ko ci dëkk bi kon boog ñi nga xam ne julli ajjuma waru leen ci dëkk bi xamuñu sax ba xam waajtaay war ci ajjuma danañ ko waajalam déet wa ca gën a néew mooy jàpp am nañu mbokk yi fu leen waxtu julli fekk bu ñu mënta ñàkk julli nga xam ne tëralin yi moo ko laaj dañ naan simpet rek ba noppi ci sàppe yi ci kanam la leen di teg moo tax léeg lekk imaam jamuj ku ko gàgganti te ndax ñetti kanam nañ leen fa tegee moo koy waral gan gu am dayo boroom daraja goo xam ne dana yenn xamul dara mën naa am sax julliwul suba bay julli aljuma ñu teg ko ci sàppe si kanam mu sës rëkk ba mi ngi yàq rakkaa yi wala mi ngi jamuj daal du mën wax dara day defe ne ni mu ko def rek nala la yi nag loolu jullit yi war nañ cee am seen fulay bopp xam ne ñii liggéey ci kër docteur euh, mbubb yooyu ñuy sol benn mu weex tal wala mu bula wala mu wert nanguwuñ kenn ku ko sol di dox ci mbedd mi te bokkoo ci ñoom moo ne yii nga xam ne mënoo takk day takk der yi yor it léeg-léeg nga gis takk der yi tase kenn xool ba xam ne bokkul ci ñoom ñu ne ko summil ci mbedd mi lu tax nag lislaam moom ñu ubbi ko mu ne ngayeet kum neex daal di am baat kum neex am wàll def la nga bëgg a def lépp jàmm jëkk ci mujj bu ci jàmm jëkkee jàmm du ci mujj ndax yàlla nelawut gëmmul te ñi war ne déet dañ koy toppante ak ñañ ko waroon wax bu ëllëgee ñi war ne déet dañ koy toppante ak ñañ ko waroon a wax bu ëllëgee ak bu ñu demee ci alxuraan danañ ca fekk waqifuhum innahum mas'uluun bu ñu àttee ba aw gaay dànkal dànkal jëm aljanna dànkal dànkal boo ko déggee mooy doxiinu ku ñemee fam jëm du ko yàkkamti gaa yi ne yàlla keede bu demee aljanna bàyyi ñu fi danañu jaaxal ndax coono bii ñu nekk te xamuñ fu jëm moo ñu ko teg yàlla ne dëpp leen kooka ñu dëpp ko mu del si taxaw mu ne lu tax ngeen wax ko mu ne lii mu doon def ci néegam moom képp bu ñu ko digaloo ñu def ko waaye daf daan def ci biir génn nañu xujj di xool musut na waaw musut na déet bokk yi lislaam lu ay caaxaan mbooloo mu baree ngi nii moo xam ne seen bakkan ci la des seen alal yàqu ca ñu tàggoo ca ak seenu njaboot te jaraloon na leen ko te jar na ko itam rawatina koo xam ne daa dem ba ñu ne moo la fal ci nga faloo lu mu néew néew bokk yi ku ñu fal ba mu yéeg ba ci kaw garab gi muy meññ lu mu néew néew war naa lekk war naa def léeg-léeg mu dagg ab doom sànni ñi ci suuf bokk wane ne fàttewu leen waaye yow saa bu ñu laajee saa bu ñu laalee bànqaas bi nga toogee daal nga ne lu tax ngeen gisam bànqaas bi waaye suñ ca noppee amatoo ci ñeneen soxla loolu lu yàlla toppanteeg jaam ñi bu ëllëgee la yàlla na yeex teñ dëpp te xam ne fii dañ fi jàdd jàll rek kenn ku nekk lañ fi war a def su ca defee lañ ca war a def jàmm rek ay am tiitaay nga ji ñu tiit du ko jàpp dañuy fa yépp wér ko ci suñu borom ni ñu koy wéri ci suñu borom nag mooy fexe ba santaane bi ñu tekki suñu tànk bu ñu waree jëf-jëf bu ñu waree digle digle bu ñu waree tere tere yàlla na defal dëgg topp te mosuñu seytaane nekk bakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina